man Lamba Mbodj laa tudd kii am doom sama rakk yaay la sama tànta la dafa xëy dafa xëy liir ba ci liir bi ci kaw lal bi ak keneen ku mu bokkal bi xam nga si ne léegi mu ne kooku xoolal ma sama doom ma sangu mu dugg ci ruus bi sangu kooku ma nga fa ak yaayam du mu duggee ci ruus bi sangu am ndaw su sol blouse dikk ne leen jël liir bi kooku nag looy day liir mu ne ko dama koy vacciné ji léegi bu ñu demee ba léegi ñun gisaatuñu liir waaw ba mu demee ba léegi ñun gisaatuñu liir ñun war a def def nañ ko ndax ñëw nañ fi wax ak bëgg a dugg ci biir hôpital bi ñoom ñu ne kenn du dugg yaa ngi dégg ma ne leen man tribunal laa jóge ndax damaa demoon ci procureur dafi plainte léegi nag police laa jëm te balaa maa dem police damay wax ak ba pare léegi ma demee police fekk naa fa ñoom it def nañ plainte ba pare waaye lu xamante ne lu raisonnable ku ko dégg xam ko ndaw si blouse bi mu sol ci blouse hôpital bi la moo jël bébé bi ci berse bi ne leen dama koy vacciner ji lu toll ni clinique nag di fay xaalis bu weex tàll ah war ngaa mën a jël gardien wala nga wët caméra surveillant yaa ngi dégg ba liir ñu da ko fi sàcc léegi ñu fi sàcc ab liir te ñoom duñ ci xam dara mënta ne kooku samedi lañ ko opéré samedi lañ ko opéré samedi lañ ko opéré waaw samedi la fi ñëw samedi matin la fi ñëw ñu opéré ko waaw liir bi tey ci suba ko jël vers 7 yaay mi ngi ci biir léegi nag ñun mbokk yi ku bëgg a dugg bëgg a seet yaay ji ñu ne la doo dugg ba dañ ma dama mujj damay indi scandale ci buntu bi ñu doo ko bàyyi kenn mu dugg waaw bu dul loolu dañ nanguñu ko gis yaay ji kilifa yi gisuñu benn kilifa ndax ba ma jógee tribunal ba ma dikkee wax leen dañ ne a ñoom ñëpp dañoo génn gisuma kenn waaw gisuma benn kilifa laaj naa leen année dirigeant yi ko wax ñu ne kenn nekku fi moom loolu lañ ma wax kenn nekku fi waaw. Dame Ndiaye laa tudd waaw li nga xam ne day moom la ma gardien bi wax nee na ma ndaw si bi ñëwee ab siwe la def ci ay yére na damay indi xale bi ay yére ci li ma gardien bi wax mu bàyyi ko mu dugg. nee na bi mu génnaat ci fa mu jaaroon la jaaraat yor ab siwo ndaw si nga xam ne nii moom la fi nekk lool muy wujj bi sama rakk la li mu wax nee na daa ñëw sol bulus na ko jox mu xale bi dama ko ñakki mu jox ko am toogee ab biir gisu ko mu wàcc biir bi ñu laaj leen ñu ne ko ñun gisuñu ko ñun jël yëpp lu jëlul fi kenn bi ñëwee ñoom nee nañ bi ñëwee bulus bi ndaw soloon fekk nañ mu aj ko ci buntu kii bi ba dem ki ay garde ak euh, euh, borom clinique bi ak jabaram ña ngi commissariat. dañ leen arrêté ña nga fa toog de xam nga lu ñun wax nag man nag dugg naa ba laaj commissaire bi noo xam ne a def du ma la wax looy def. kan fa yóbbu. Ah, fa laa leen de xam nga ku leen fa yóbbu nag. ñoom ah, na dañuy xëy na xëy na ñoo fi suñu bopp. ak ak ak bi nga xam ne moo moo moo àndoon moo àndoon nag euh, Kéwoussine man andi naa ko fii man itam nag dem naa def sa plante. paya baag yi ma yor suba la ñu wax nga ma ñëwaat waaw gisuma ko mun maa dugg Modou Diop mi nga xam ne ni mooy bàyyi xale bi sama jarbaat la waaw di waa daal samedi dal la ñu ko doom bu góor la am waaw xaama gun ko wax yàlla de waaw kër duñ ko dugg noo ngi ci biir ci naaj wi de a toog ba ba ba ba ba ba mënutoon tooram ñu xam lu ñu xam ba wala wala ñee dikk comme moom ña nga foofa ñëwaguñ ah dañ toog ba ñëw ba xam rek lu ñu wax ah def naa plante plante bi man li ñu ma wax dañu man da ngay xaar ba suba nga ñëwaat à huit heures ah su ma xëyee suba demaat waaw ah.